i salaatu wasalaam ala ashrafil mursalin sadid lisaani nawir janaani safi amaani wasid baraay fas yéene dikk ak yéen fii ci Bichri TV di fi def ay jotaay yoo xamante ne jotaayu xam-xam lay doon di émission bu am solo boo xamante ne ñu ngi koy waajal fas koo yéenee tàmbali muy am talaata bu jot fii ci Bichri TV à partir de vingt et une heures jàpp vingt deux heures ngeen fas cee yéenee ànd ak nag seen mbokk taal di Yaxya ñu fas cee yéene def nag ay jotaayu waxtaan yu am solo ndax ku ne péncum xam-xam wax nga lépp ku ne xam-xam wax nga Serigne Touba wax nga maam Cheikh Rawa Fall waaye ñu fas yéene dikk itam def ci ay yaatal ay jotaay yu am solo ci njàngaleeg Cheikhul Khadim rawatina njàngaleeg maam Cheikh Ibrahima Fall jotaay wi nag bu ko kenn wuute ndax ku ne xam-xam wax nga yoonu murit kon nag bu ko defee ñun ñëpp ñu ànd waajandoo ko muy am fii ci Bichri TV ngeen ànd ceeg seen mbokku taalibe Yaxya mu sëñ Abdou Samad